salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ne golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu yoon simbu gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu yoon simbu na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. Ah, damaa yaakaar ma bëreeg moom ba bët set ba guddi mu sangu ñëw suma kër man am naa yaakaar ci Baye Mandione Baye Mandione mi daf ma faa. ki suivre wala Lutte TV ah ci mën doon rek ñu ngi nuyu internet yëpp tey nag ñu ngi biir Gambia parce que mënuñu ñëw Gambia ba dem Djibbal Touré yaakaar naa ku ne dégg na turam ci làmb Gambie wala làmb Sénégambia rawatina sax diggante ma ku mel ni le grand champion Balla Gaye numéro 2 jibal ñu ngi lay nuyu di la ziar et puis di am contentement toog ak yow fii sa biir kër waxtaan ak yow. waaw ah, maa ngi leen di nuyu Yon Lutte TV di leen gërëm di leen sant ah di leen wax daal jër ngeen jëf daal wax dëgg yàlla kontaan naa si yéen bu baax a baax a baax because ah, bi ngeen ñëwee Gambia yàggut waaye try ngeen daf déplacement ñëw ba suma kër loolu rek dama si kontaan bu baax a baax ak jëme ko ku tax ngeen dépassé file. ñëw ba suma kër pour ñëw seet si ma. Mm-hmm. tey jibal li ma lay laaj mooy yaakaar naa am na loo doon fii ci dëkk bi ñuy di Gambia jibal lu ma mën a wax si boppam tuuti rek. waaw dëgg la dëgg yàlla nag <laughs> lu ma la mën a wax sama bopp na trop wax dëgg yàlla. because mun naa wax ne Gambia fii ñu bari xam nañ ma wax dëgg yàlla. because dama doon promoteur laa te businessman laa so ñu bëri xam nañ ma Gambie fii nii wax dëgg yàlla. promoteur u làmb. waaw promoteur làmb. da nga fi a organiser ay làmb fii. eh waaw yu bëri sax xoyantaan mi ngeen tëgal nii sax tëgal naa ko làmb fii nii. xoyantaan mi sax tëgal naa ko làmb fii nii wax dëgg yàlla. so balaa ma tëgal lamba sax xoyantaan si boobu man moo nekkoon suma mbër. Mhm. moom moom laa doon support time boobu noonu. Mhm. ñu dem ba mu yàgg yal ko yàlla yërëm alaaji caam. Mhm. mu gis na may def si lamba ji mu ne ma. téye ma si loxo mu ne ma jëbel mu ne ma ne ko naan mu ne ma yow war ngaa tëgal làmb because am nga moyen bi te xam nga mbëri si noonu laa commencé nag di try si gars yi di dem di dem dem ba mu yàgga ma dugga si um, laasia ñaari at laa tegul làmba because uh, yal na ko yàlla yërëm su ma yaay dafa gaañoon laasia maa ngi ko ñaanal fu mu tëdd noonu yal na ko gënal fu mu jógee nii so looloo taxoon sax daaw moom mënumaa tëgga làmba waaw si laa waaw si laa bàyyi woon gars yi waaye ren incha maa ngi bëgg a ñëwaat bu soobee yàlla waaw pour tëggaat lamb waaw bu soobee yàlla. ok lambu Gambia fi yéen ñi fi nekk comme ay promoteur di fi tëgg lamb est-ce que tey buñ buñ ko comparé ak lambu Sénégal ci côté ni ko ñuy dundee fii est-ce que wala ni ñu koy dundee Sénégal est-ce que noonu la ñu koy dundee fii Gambia. waaw ñu ah, ñu ko dundee fii nag lenn rek mooy suñ problème fu mu nekk nii mooy sponsor yi. sponsor yi moom dañ dellu gannaaw trop wax dëgg yàlla si fii si Gambia sponsor yi dañ dellu gannaaw trop because ñun time bu ma laan tëggal lamb man. benn compagnie bu ñu la béy ba wax dëgg yàlla dañ ma laa jox tiisaat dañ ma laa jox xaalis tuuti wax dëgg yàlla waaye nag su moyee ñooñu man amul benn compagnie boo xam ne dina ekkati dara na mu am lii pour nga sponsor si làmba ji daal because yow yaay jënd sa own xaalis fay sa mbër yi fay stade yoon yu bëri lu su mun nekk ba yaa ko defal sa boppa understand soo soo wiinee yaa xam soo daanoo tim yow yaa xam daaw nag su ma mbokki pour mu tey maa ngi leen a nuyu ñoom ñëpp ku nekk sa tur ak sa santa ñu bëree daanu ñun daaw suñu làmb ji fii yaakaar na benn promoteur moo mun a taxaw wax ne daanuwut su moyee kooku promoteur ñëpp a daanu lan moo leen nee nga sponsor yi ñooy ñoo ñoo da ñoo daw lan moo tax sponsor yi daw organisation bi la wala mbër yi la wala public bi la non ah, sponsor yi Gambie moom xamuñ ko loolu moom ñemee naa ko wax ñëpp dégg ko sponsor yi gambee xamuñ lan mooy sponsor because duñ duñ ko duñ ko dugal si làmb ji am na feneen fu ñu ko dugal nag xañ na waaye si làmba ju ñun suñu làmba ju ñun des responsable duñ dee ñëw waaye diggante daaw gis naa ñu mel ni euh, ñoom Matar seen gis naa ne si làmba ji wax dëgg yàlla ñoom du ñu ngee try waaw so nuñ Sénégal nuñ nekk di sponsor seen làmba ji ñun right now suñ ko nekka doon sponsor suñu làmba ji kon na ñu du suñu làmba ji fu mu nekk nii romb na fu mu nekk nii because soo gisee season bi tëj na de ba léegi nii kenn saanagut benn benn combat benn taxawagut bu du jëmee que lu mu taxawal nii benn mbër munu laa wax na la saay naa benn combat te time bi dama la fekk combat yëpp ëpp doole yëpp taxaw nañu waaw ñu ngi ko advertise fu mu nekk nii. état bi nu ngeen di euh, dundee ak moom est ce que moom mu ngi ciy dugal loxoom wala. waaw because wax dëgg yàlla ñu ngi ko nuyu di ko gërëm di ko sant mooy président Adama Barrow wax dëgg yàlla right now nii ootoon nañu meeting yàggul président bi si boppam oowoon nañu meeting ñun axlu làmb yëpp ñu dem uyu ko wax dëgg yàlla dig nañu ne fu mu nekk si dugal loxoom. Mm, waaw moom dig nañu loolu nañu incha allah moom dina si dugal loxoom fu mu nekk nii. yéen li ngeen di fay mbëri tamit est ce que kase yu jaar yoon la kase yi ngeen di fay mbëri est ce que jaar hmm. yu bëri léegi feeñ na si fu mu nekk nii. Hmm. jaaratoon yoon wax dëgg yàlla ku nekk rek wax sa diggante a kase yi boo ma ko doon waxal par ñaana ngeen daan fay mbër à peu près yow mas ngaa fay mbër ban kase ban kase bu seer nga mas a fay mbër. yes because fu nekk nii right now nii time boobu noonu right now nii fu nekk nii ñaa ngi fay mbër ay bëri hundred thousand hundred thousand one fifty two hundred thousand ñu ngi koo fay mbër mm-hmm. loolu nag mënuma koo calculer si CFA nag mm-hmm. waaye fay nañ ci mbër two hundred fay nañ ci mbër one fifty fay nañ ci mbër hundred seventy five eighty onasan mm-hmm. waaye yooyu yëpp ñoom seen bopp dañ toog ba gis na fu mu nekk nii ñu ngee bëgga a loru si loolu because tey su ma la fayee two hundred thousand combat bi jeex ma daanu ma daanu am na promoteur ñu ngi daanu two hundred thousand te two hundred thousand nekkul xaalis si caaxaan ñii ngi daanu ay one hundred and fifty te loolu yee ñu ngi koo daan te loolu. 2 millions 500 2 millions 500 te xam nga loolu du xaalis caaxaan. sa relation ak Jamaïcain loo ñu ci mën a wax. non su ma relaxé ak Jamaïcain mu ngi ñëwee si Pathé Pathé xaritu Jamaïcain la te maag Pathé ñun tim su ma relation ak paate dafa sori léegi bi loolu amee Pathé woo ma téléphone na ma dafa am su ma benn xarit bu fi nekk de Jamaïcain dafa bëgg a tëgg làmba diggante bàyyi ma ñoon ak xoyantaan daal bëri de sax dama tukki mu kool ma wax mu la ma ne ko ah, loolu de baax na trop ñu ne si loolu di waxtaan bi mu yàgg mu ne ma ñëw na fi am na tribam mu ñëwoon mënuñu gisee boobu maa ngi tukki yàlla daf na tribam bu mu ñëwee ba mu ñëwee ba suma kër dafa fekk sax maa ngi am meeting si fédération bi si laa kool paate ma ne leen dama nekk si fédération bi meeting su ma paree rek dinañ gisante loolu lay gisee dañu toog ñu waxtaan moom tamit mu nekk ku baax ñun ñëpp ñu bokk ak area bu ñu jógee léegi si laa ko wax na ko fu mu nekk nii dinañ jàppante bu baax ci sa làmb ji ni su soobee yàlla ay yonent ba làmbam jooju ban taxawaay la ñu mën a xaar nga am ko ci Djimbal Touré làmb bi kee war a tëgg fii mu ma ñoon ak xoyantaan non xam nga lu nekk si man bëri na waaye mënu ma ko ubbi di ko wax xam nga surprise mun naa am suma diggante ak moom waaw mun naa am suma diggante ak moom si làmb jooju mhm. because xam nga doomu aadama comme lu ma la waxoon rek nit ki su la yëgee rek nga yëg ko te jëme ka dafa dugg a su ko neexoon mu ñàkk ñëw si man mhm. waaye dafa dugg fii nii di ma oo di ma nemmeeku di xam si lu ma nekk soo loolu yëg-yëg boobu rek wax dëgg yàlla tey su ma doon écrit di ko may dinaa ko may loo xam ne ni balaa cinq heures ma tey ñu tëj porte làmp yi ku mën a ku mën a dugg seetaan nga ñëw yaa xam waaye su cinq heures jotee ñu tëgg grand combat bi mu ñibbi fekk am na lu ma am moom mu ñibbi hmm. wax dëgg yàlla yéene naa ko loolu noonu waaw yee naa ko loolu yéene ëpp yéene moom lu am am solo la léegi nag fi may jeexale mooy euh, jibal Touré dañ koy dégg mais di dégg Balla gay de lan mooy sa relation ak Balla Gaye non Balla moom nu ma mel moom sax dafa ñaaw dama naan demay noonu sax su ma yaay si boppam sax fu mu tëdd yaa na ko fu mu jógee nii dama dem na ni nga mel nit ki ñaaw na jabel benn combat bu am daf ma miti mooy diggante moom ama seen lu la ci naqari mag laa te yooy naa te mag laa nag waaye dama dugg suma néeg kerek am naa ñaari fan génnuma suma néeg loolu naqari ci bés boobu ama seen moom Eh, <laughs> Babacar boobu combat hmm. ñaari fan yi génn ma su ma néeg te keroog su ma génnoon rek problème mun na am fii la nit ñi ñëw fii dafa fees tepp nit ñi di ma ñaawal ah. waaw dafa fees tepp man Balla Gaye su war a bëri fii salle bi fii kenn du fi xaj Balla Gaye su war a bëri kenn du xaj su ma kër man su Balla daanee xar drinks yëpp a yëpp pejala feel free ñëpp a dee naan waaw ñëpp a koo bëggee waaye kuy suma problème si arène bi mooy ama seen ama seen moom te leen a toppee mbooro nag daa mel ni de munuma si moom dara nag donc mënu ma sama seen dara. amu ngeen ci moom solution. booy ñaa ki nga xam ne mooy xaritam. booy ñaa. booy ñaa booy ñaa daay ñëw suma kër fii nii hmm. daay ñëw suma kër mhm. waaye lu óor laa ko wax dama ko ne man baal nag mooy suma yëpp hmm. moom mu nangul ma loolu ci biir loolu nangul na ma ko mhm. because xam na man fan laa toll si la wax dëgg yàlla moom xam na fan laa toll si la mhm. waaye daaw la yàlla daf ma doog a gisante ak Balla ah. ak lu ma mel si noonu moom yëpp daaw lañ doog toog man ak moom hmm. waaw wax dëgg yow daal Balla kepp mbëri senegali yi. waaw rek. man Balla rek Morlo nag wax dëgg yàlla. dama koy téye. benn dafa am fu ñu bokk ma ak moom. Mhm. Morlo dafa am fu ñu bokk ma ak ngeen bokk. <laughs> jëmee nga ndax ma wax loolu wala bu ma ko. ah fu ngeen bokk xanaa fële la am na dëkk bu may gis. Arafat Arafat. ñuy tu ñuy nuyee famille Touré bu nekk foofu di sàkku ci ñoom ñaan. sëñ Habib Touré sëñ Habib Touré borom ñu ngi koy ziar di ko ñaanal. gudd abir gu sëñ Habib suñu amee suma fanu gudd abir gu yaram rek mhm. suñ lépp dina baax Babacar fanu gudda wér gu yaram rek lañ koo ñaanal sëñ Habib tàllal nañ la loxo yi bépp taalibeem nañ ko ñaanal fanu gudda ak wér gu yaram sëñ Modou foofu ngeen bokk waaw foofu lañ Modou foofu lañ bokk moo tax si combat bi am ama seen ma ne leen dafay miti rek waaye muudu foog mu jël ruwaa gi yóbbu ko foog mu yóbbu ruwaa gi mais mais léegi Balla moom mu sa mbër la ñu ngi dox digganteem ak Tapha Tine léegi naa fay nañ ko millions yu bëri mu bañ da ngeen ragal Tapha Tine pour bañ mu fayeku wala lu xew temps nekk nii amul kenn ku ñuy ragal si arène bi amul kenn ku ñuy ragal si arène bi. Tapha Tine nee na pare na bi yoon de. Tapha lu gën a ñaaw luñ ko defoon loolu lañ ko defaat bii nii. yaa wax lii jabe man maa la ko wax lii. man maa la wax lii te su baree su combat boobu su taxawee. su passé dinaa la uwaat dina ma jëlaat ma taw sama doom ñu ba fekk dagaar ma ne la la ma la waxoon delluwaa delluwaat naa si. yaa waxoon dama ciy dellu doo wax xet. xalaatu ma ko. Ah. xalaatu moo ko Babacar xalaatu ma ko. sëñ Cissé sëñ euh, sëñ Cissé mu sañ Babacar si sama xarit ba sëñ Cissé bu sëñ Babacar si borom benn tali fanaan na fii su ma nekk fii nii sama waaye la na ko Jabel Touré fanaan na fii su ma nekk fii nii doomu ndayu liiru jaan su ma xarit ngaa gis na moom tim sañ Cissé sëñ Cissé moom tim du am ñaari fan ñetti fan yu ma woo Jabel mbaa yaa ngi si jàmm ku baax ngaa gis noonu moom tim in Sénégal wax dëgg yàlla su demee si yaayam sa daf ma day woo ma wax yaayam moom moom tim yàlla moo ñu tax YouTube laa gis rek mhm. affaire am neex ma rek ma téye ko nii wax dëgg yàlla ñuy déggoo déggoo ba yàgg rek mu woo ma benn bis daf ma woo sax dama jëbel foofu ne ni ma ne ko tukkiwu ma de maa ngi gàmbi mu ne ma kon maa ngi ñëw gàmbi seet si la time boobu combat muur la bi sax ma waaye la fa xew combat baa ngi xat fu mu nekk nii waaye nag dinaa ñëw fii nii si la ñëw fii am na fi euh, benn fan ba si ñaari fan après si la ñibbi bu ñëwatee Gambie yaa ñuy dalal de jam de kii nga nuy xel di booleel boo xam boo jox nga ñu Xadijatu Sow borom boo rek boole ak non jame moom ku mu ñu jox ñu téyel ko ñu téyel ko jame moom ku mu ñu jox rek ko téyel wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow de waaw man di kontaan naa si yéen de jame kontaan naa si moom bu baax yéen Leewtoo itam kontaan naa si yéen bu baax a baax wax dëgg yàlla Leewtoo Lutte TV 100 pour cent lamb raxuñu ko ak dara ñun bu baax sa dama leen dee suivre bu baax a baax wax dëgg yàlla waaye jamee ka moom wax dëgg yàlla ah lu ma koo ñaanal daal yaakaar naa daal yal na ko yàlla daf rek waaw yal na ko yàlla daf rek xale la ñun ñëpp ay xale lañ yal nañu yàlla dafal jàmm dafal ñu sutura lépp lu mu mébét si làmba yaa na ko ko suñu borom may loolu rek lañ am pour ñaanal ko moom parce que xale bu baax la wax dëgg yàlla man nit soo ma soo ma soo ma duggee nii rek gaañ nga ma waaw te moom dafa ñëw rek yàlla daf mu dugga ma wax dëgg yàlla su ma soxna yi nekk si kër gi tam ñoom Aïssatou Gueye ñoom ndaxte Gueye ñaata soxna daa mel ni da nga ne samay soxna benn benn la am doo takk ñaar kii suma rakk kii ah, suma suma suma xanaa ñaareel jabaram la ah ñaareel ndaxte lii ah ñaareel de ah xam naa fa ma bëgg a xam naa ko xam naa fa ma bëgg a yóbbu. ah non suma ñaare bàyyi naa ko si Balla Gaye. moo la koy wutal waaw Balla koy wutal bàyyi naa ko si Balla waaw. bàyyi naa ko si Balla. salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous. jiggante xoyantaan ak Baye Mandione ci bi ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloo ak moom dina xam ne golo golo du golo du de. yow yow xamoon nañu yoon simbu gaynde la dama lay laaj rek yow xamoon nañu yoon simbu na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noor bëgën baal bët gémmi man xam nga lan laa xelaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. waaw ah, ba demee damaa yaakaar ma bëree moom ba bët set ba guddi mu sangu ñëw suma kër man am naa yaakaar ci Baye Mandione Baye Mandione mi daf ma faa.